mbokki Sénégal déglu leen le 11 novembre bés bu mag ca arène nationale Mousnakh production la ñu ciy àndal mu ne première édition drapeau Madiop Diop maire bu Grand Yoff Mousnakh ne damay dem jëli serpent noir bu écurie Dóor waar daal koy jox nag ki nga xamante ne ni moom mooy doomu jàmbur écurie Jimbóori combat spécial li mu ne damay dem jëli ji amul frein bu Kër Mbay Fall daal koy boole ak Mayakoor bu écurie Grand Yoff mbooloo drapeau Angèle Fall responsable politique jël dem dina fa jàkkaarloo ak mbokk yi drapeau Xaadim Sam nee ko bu Cambérène ndaanaan bi dina fa jàkkaarloo ak sombi drapeau Fatou Thomas mbokk yi ak yeneen six combats préliminaires yu neex a neex a neex a neex ci bés bi ñu àndi ci ak Mousnakh production du xam ngeen ko ay ndaanaan kese lañu bu ñu ñëwee rek làmb ji neex ndeysaan Tigre de Fass le deuxième Tigre de Fass mu ngi noonu di Moustapha Gueye borom drapeau bi tey c'est la première fois ñu gis lii combat bu des cinq jours ñu gis ñu indi seize bi andi li nga xamante ne moom moo di couronne bi jëppal ko waa CNG lépp rek ci mandu père maa ngi lay nuyu bu baax a baax di lay ziare bàyyi la nga nuyu ñu jàkkaarloo. jërëjëf Lamine maa ngi lay delloo nuyu di nuyu sa nattango yi nga àndal ni yëpp tey jii nekk bu mag la. bis bu rëy la pour Sénégal ndax dañoo jëm ci bis boo xamante ne daanaka cinquante ans yu nekk juróom fukki at yu nekk benn yoon nga koy gis euh, suñu ñaari doom nag ñaari doomu Sénégal Modou Lo Ama Baldé ñu tuddee drapeau bi Moustapha Gueye nekk seen nijaay nekk seen baay nekk seen idole nekk seen référence yéene leen jàmm ak salaam ci ñaari camp yëpp euh, ñaar ñi nag buñ dee bëri ku ne xam na ne ñoom ñaar sax xam nañ ne kenn kay daan moroom mi waaye nag làmb baaxoo werante ku ne gàddu su ñu nag suñu devoir mooy lii a ah, lii mooy bantu buur lii mooy mbaxana buur lii mooy photo buur ci maandu ak bañ a denc ak bañ a téye fii ñu toog mooy CNG de lutte fi la lépp di xewee fi la ñuy nangoo avance mbër yi fi la ñuy fay itam mbër yi fi la ñuy daane mbër yi fi la ñuy tatagal yi ñu indi ko teg ko ci loxo ki nga xamante ne mooy Bira Sène président CNG nga xamante ne ca bis ba dañ koy gàddu teg ko ci biir stade bi ku daan ci ñaari mbër yi fii ngay toog téye ko nii ma ko sol mbaxane mii ma sol sol toog ci fauteuil bi mu toog ndax yaakaar naa ne ñoom ñaar kenn ku nekk ci ñaari mbër yooyu rek bëgg ngaa mel ni man mbaa ëpp ni man kon mu ngi mel ni tey jii man maay buur bi ñoom ñu bëgg a donn buur bi ah donn nag mun a weesu nag donn du ndey la ñuy donn da ngay doon nit doon ko ci la def te ñoom dañ ñoo doon ci bëre donc dañoo doon ci bëre nag lii ñu doon sagale bis boobu waa nañ nañ ko bëree kem talaay nu mu toll que le meilleur gagne Ama ak Modou Lo yàlla da ngeen daanante salaamaaleykum wa rahmatulah. buñ daanante du leer rek. nañ daanante daanante mooy naka daan morom mi rek waxuma njaax waxuma bëre laabaal yi yàlla nañ daanante kuy daan sa morom ta daanante mun na nekk ñaar kenn ki mën na daan moromam ren déwén revanche am kenn daan ko. mun nañu ko féetal foofu waaye yàlla na kenn ki daanu yàlla na kenn ki daan. li ñu tënk ci ci ci réunion bi ci ay mesures de sécurité ndax loolu dalal na. waaw li ñu tënk ci ay mesures de sama xel nee naa alkaati yi laa ma bari coow rek waaye amaa Balde dafa jox cër Modou Lo Modou Lo jox ci cër Ama Balde ba ñu tàmbalee bi léegi amul kenn ku mun ne Modou Lo wax bu ñaaw bi la Ama Balde wala Ama Balde ñaaw wax bu ñaaw bi la am Modou Lo ñeneen ca gannaaw nag di wax ñoo ñooy ñooy xuma làmb ji ñoo koy neexal mu am tension am pression am tension am pression parcelle am tension am ko fépp Sénégal ña toog seen kër sax dañuy tensionné loolu mooy làmb mais ku nekk xam na ne Sénégal bonuñu ñu yaxee dikkuwuñu déedéet làmb ji jàmm ak salaam fi am ak paix ki daan daan ki daanu ñibbi du tee làmb di am sax dimanche vraiment nag je pense que ne bu kenn tiit bu kenn yoxi yoxi bu kenn jaaxle jàmm ak salaam fi am réunion ñu def tey jii nag. réunion de coordination la ñuy def ndax policiers yi ndigalu CNG la ñuy déglu lan la ñu wax def fan la ñu wax a taxaw naka la ñu defee ndax ñoom leen tax a jóg jàmm ak salaam ndax ñoom seen liggéey mooy aar ñu yéer ñu ci bu ñuy dox yéer ñu ci bu ñu nekkee suñuy oto yéer ñu ci bu ñu tëdd nelaw loolu moo tax ñu wax force de l'ordre service de l'ordre dañ fi ñëw pour teg ni ñi ci yoon kon boog bala ñu lay teg ci yoon tegul ci yoon boo yorul xeer yoroo paaka yoroo jaasi lu dul da ngaa sol sa mbubb ñëw toog pour seetaan lamb yëfu noobul la war ngaa ci lamb gi sax naan ataaya mbaa naan boisson ci jàmm ak sportivité relax loolu daal lañ fi lañ fi soxla fas loolu yi nag ah nee nañ noobul bu ñu indi danañ indi bu ko fukk maanaam bu ñu indi cinq policiers tey jii dañuy bëgg di indi vraiment mille policiers la ñu bëgg indi jaru ko mooy leen jaru ko jàmm ak salaam noo tafa toppatoo arène bi toppatoo extérieur bi mais lii sécurité ñu ne ko dafa mat sëkk. nee nañ tam mbir mi du question dañ ñëw pour liggéey ak CNG wala liggéey promoteur Sénégal la ñuy liggéeyal même bu leen CNG woowuloon promoteur woowu leen ñoom dañuy ñëw def seen liggéey parce que li seen liggéey mooy protéger la population sénégalaise. je pense que ne kat kon ñu wax sunu doom yi suñu jarbaat yi nañ ñëw ak yar ak teggin ku ne supporter sa mbër tàkk sa waaye bu kenn offensé sa morom. ndax bu ñu paree pare ñaari mbër ci biir làmb gi la ñuy kontante bokk même plateau toog kii ne ko félicitation kii ne ko merci. naaw yombale nañu loolu. ñu bari ci biir géew bi lañuy lañuy ragal tey jii lan tension bi ci biir géew bi. ñu bari foofu lañuy tiite instant bi tiitatuñu stade bi. dëgg la tiitatuñu lu wër stade bi. tiitatuñu waa Pikine wala waa Parcelles mais biir géew bi. Mm. tey yaakaar naa ne boo amee message boo lancé moo doon nga koy lancé directement. ak ak yombul ni dina seetaan bi Ama Baldé nga directement. macha allah ah, message bi may lancé Modou Lo di ko ah, message boobu moom mooy gis ko ci ñoom yar gis ñoom teg gis ñoom ñaar tamit musuñu yàq làmb et eh, am na ay charte nag yo am fii au niveau du CNG. que fi devant les autorités ménager mbër yi taxaw fi ménager président dañu woo président yi nga xamante ne ñoo yor eh, écrit yi woo. moo fukk ak juróom loolu dafay féexal mbër mi sax bu nit ñi baree ci watam ku ne daf concentration. Modou Lo def noonu neen fukki nit ak juróom ñoo may ku ma yéene jàmm xam nga mbër mi dina jafe trop pour dogal staff ñooy dogal waaye staff bu nekk bu ñëwee respecté li ñu wax du ñu am problème ci bunt bi dinañ ñëw dugg ndànk dem toog seen cimukaay bàkk seen bàkk tuus seen bëgg waaye itam Lamine mbër buy tuus am juróomi nit ci côté ndeyjooram am juróomi nit ci côté càmmoñam doy na sëkk pour tuus muy fukki nit ak moo muy fukki ak benn yeen ñeent ya mën na ñoo seet saafara mën na ñoo toog ci cimukaay yomb na ñi ci topp ñii ci kaw tur bu seetaan ndax ñëpp mënuñoo def ci def ci yëf yi kon boog yaakaar naane ne loolu lu leer la ménager yi nga xamante ne tamit dañoo sonn ci làmb bisu dimanche bi exceptionnellement dañ leen ne ca kaw tur bi ngay yëg ku amul mbër muy bëree dootoo toogati ci banc yi mbaa chaise yi ménager dañ tàmmoon bu ñu ñëwee am seen place loolu sax cosaan la ak aada mais tey dañ leen ne da ngeen dañ leen di ñaan ngeen yëg ci kaw càmbal càmbal ci ci biir géew bi am ku mu neex dugg ci géew bi am nee nañ aussi wax nañ aussi lu am nee nañu benn mbër ci ñoom ñaar du ànd ak mu bokkul écurie Ama balde boo Niang du ñëw de Ama Baldé Eumeu Sène du ñëw de Ama Baldé Sokh du ñëw yow ak sa écurie kese yéenay ñëw reste seen combat ñooñu amuñu droit sax dugg ci géew bi déjà c'est déjà clair kon bokk buñ ko fexee Modou Lo Franc du ñëw de Modou Lo góor si góor a mi ngi mi ngi euh, jàmbaar académie nag du ñëw de Modou euh, Modou Lo euh, nu mu tuddati góor a du ñëw franc du ñëw garga de du ñëw képp ku bokkul rek énergie doo ànd ak Modou Lo inter di la interdit boobu nag musu fi jógee CNG moo yombaloon rek bàyyi ndax da ngay gis yenn saa yi mbër di bëre benn mbër ànd ak moom te lool dañ ko terewoon depuis longtemps gars yi dañu ko dekkal ci ko bi pour leeral leen yëpp rek ko nekk xam ne Modou Lo su dee bëre Franc day day jege ko góor soog day ñëw jege ko ndax ñaari écurie ba ñetti écurie la yoo xamante ne ñoo bokk di entraîné xam nga neexul nag nga ànd ak mbir mi entraîné moom ay at benn bis ñëw doo ñëw parce que ñoom ñaar bokk ñu écurie pour leeral ko rek ci kanamu population sénégalaise ñu xam ne képp koo xamante ne bokk leen licence bu ngeen yore yéen ñaar du ngeen ànd ci làmb ji pour bëgg rek mu nooy fiix jaar yoon Modou Lo juróom ñi juróom à droite juróom à gauche muy fukk ak moom muy fukk ak benn ñeent ña tey ci mukaay di ko sotti saafara yaakaar naan bu amee day yomb lool day tax sax amateur di kontaan géew bi day féex amateur la dañuy fay lu mat deux cent mille francs billet bi gën a ndaw ñaari junni la waaw boo fayee ñaari junni war fa dëgg yàlla war na ko jël say bët nag moo loolu tous ñu koy gis carrément Ama Baldé tous ñu koy gis carrément Ama Baldé lagaat nga gis ko carrément Modou Lô lagaat gis ko carrément mais loolu moo moo fi indi doomu aadama yi te ku ñu ñaari mbër yooyu nañ ñu may ñu gis leen leen xool loolu mooy la moo def sax la promotion du lutteur mooy tax ñu naan kii moo mun a fecc kii moo mbëre tey kii moo jekku kii moo xees kii moo ñu loolu la ñu xamee mbër waaye jàpp mbër wër ko mat cent personnes kenn du ko gis ngeen di faxasalu di daanu butel yi toj di tuuru ngeen di xeex sax seen biir jaru ko moo tax fukki nit ak juróom am kenn ku nekk ku ëppal fukki nit ak nag loo ko dal yaa ko teg sa bopp loolu am na solo pour jeexal père gis naa la wala boog jël naa la nga ne ñaari mbër yi nañ ma bëreel ku la xam xam ne tamit lébu nga laal nga ci lébu gi. ok Ama Baldé mi ba ni jour si mosul yéene def fecc ay yuusaak ay caxagur yooyu fecc yooyu fecc yooyu noonu. dafa nar a andi cosaan yi papaam doon fecc loolu tamit daf mel ni. loolu dañ bég xam nga tax ñu ci dëgg yàlla nag lamb ji koy bëgg a dénaturer dénaturer mooy lan dinañ fecc yuusa dinañ fecc bu bees bi suus dinañ fecc façon fecc yoo xamante ne vraiment dañu sax finalement ñàkkal seen bopp fayda ponkal mu tël mag mu jëm ngembu dogali takk say gàllaaj wëlbati du suus wala ngay euh, naaw wala ngay taj temps bala nga def seen xeetu fecc yooyu làmb cosaan la cosaan boobu boo ko dencee sax gàllaaj yi ngay sangoo ak di ko tuura di ko takk da lay sem si sëm-sëmu na dëgg la ah golo wàcc sumkaañ sumkaañ golo wàcc leen sëmu na mu yëg dëgg la bàkk la xëy mat na garab gudd na rëy na wax ne ba ne xaat xëy mat na garab bàkk la liggéeyu ne doom bàkk la njaajaan jinde bàkk la rëf koor bàkk la bari na bakk yu ñu bàkk yoo xamante ne ay wax la nekkul ay tëgg rek nañ ko jëfandikoo dekkal suñu cosaan day tax ministère de la culture ñëw mbokk ci làmb ji bu suba mën nga fay jóge dem États-Unis pour bakk ji muur doo bu jógee fee ñu ne ko mbay mbay Ababacar mbay mu tu bàkku njug njugu séeréeram ñu mais yooyu dafa rafet ta neex mbër muy fecc comme jigéen ca bisu combat ba da ngay mel ni jigéen mbër yi bari duñ ko seetlu nag mais gàllaaj dafa fiir cosaan dafa fiir aada dafa fiir boo mënee Ama Baldé day dekkal cosaanu papaam mais ku sut lu kontaan kat moo yàkkamtu lu gis Ama Baldé ah, Falaye Baldé nu mu naan bàkkoo gis naa ginte mu mujj ginte daaw ko bàkkoo Falaye Baldé ginte yu mujj la moo ko daan bàkkoo ci làmmiñam naan ginte cere Baldé ak du jéggi raay ak du dem guerre loolu ay coono waaye moom bàkkam yëpp ay bugare bulaak ay jémbe ñu koy topp di ko dar kay tëgg làmb kay tëggal fa bal bale sifle daan sex di far far di tëgg bu ware bëri ca géew boobu mu taxaw ki leen tëggal fa lay balde après mu tëggal Double Less mais yooyu bu ko Ama Baldé dekkalee dafay am leneen Ama Baldé mën na fecc mën naa naaw mën na mën bëgg na ko dégg na daaj waaye na indi loolu imagine Ama Baldé jóge Pikine rek def ni bàyyam doon def mais am na ñu ne ci côté bi dañuy jooy mais yooyu nag bu ñu ko mënta def yooyu def amul njariñ Modou Lo ku nekk xam na ne ndaanaan di fecc kat la kon nay la ci fecc nag ndax gisoo Modou Lo yi gars def ay manière fekk ko ci daf koy fecc dans la règle de l'art normal boole koog mer wane kanam ne moom mbër mbër la day def l'essentiel moo mën a kat moo mën a fexe ba Modou loo dekkal cosaan mais loolu dafay neex mais ay ay Modou Lo am na ay nijaay yu mbër am na ay papaay mbër am na ñoo xam ne jigéen nañu Modou Lo am na ñu Modou Lo gis ñu daan bëre mu leen daan toppatee ji mais ñooñu mën na ko dekkal moo dàq fop Modou Lo sax nag wax dëgg yàlla bokkul ci gars yi fecc yi ñuy fecc moom dafay fekk normalement day tuus fecc def duñ euh, koy waxeeti Modou xarañ loolu def ay manière am mais bu du ko mus ko wàcc te du ko wàcc Ama Baldé noonu kasa noonu kasaalika vraiment daal suñu ñaari doom yooyu dalal nañ suñu xel ci cosaan ak aada nañ ma bëreel nag dama ko ñaande maa bu ñu dajale nombre de combats yi ma bëree na perte faa ngay bëri na 45 combats wala 47 combats dañoo bëgg def 47 actions ci combat bi ñoom ñaar dañoo war a bëri ba ñu àtte dem naani ndox sotte koo safara ku ne di xëm ñu ñëwaat ko ci ba mu saf sap juróomi at yooyu ñoom ñoom juróomi la ñu am. am nga yaakaar ne loolu mën na ci am. mais juróomi combat la ñu amee dañ ko war a bëri ci benn nga mais moom laa bëgg am ndax Ama Baldé nekkul genre bi bëri ba mi temps waaye Modou Lo nekk na genre bi bëri ba mi temps Modou Lo tam nekk na genre bu lu bëri ba mi temps ñoom ñaar ñëpp bu ci demoon nañu ko Modou Lo yóbbu nañu ba mi temps ñëwaat su ma juumul nees ak ak ak Ama tamit bëri nañu ba mi temps ñëwaat guy gi Ama danañu ba mi temps ñëwaat xam nga ñamal nañu bii ñamal nañu bu ci des waaye nag ñaari mbër yooyu nag kii daa bëgg lu gaaw kii bëgg lu yéex waaye kii bëgg lu gaaw ak kii bëgg lu bëgg lu yéex ñu wax nañu ci benn place kenn xamul fu ñu jëm. kon soo am. en tout cas ngi souhaité ñaari mbër yi bonne chance ñaari mbër yi nañu am tal ak fekke am doole ku ne am na sa capacité ñu bëgg ñu bëggal Sénégal ci suba ko ñu xëy la seen soxla. merci beaucoup jërëjëf. kooku mooy père Moustapha Guèye di parrain bi nga xamante ne tey moom la liggéey ni ko laay ñëwoon fas ko yéene delloo njukkal ci combat Ama Baldé ak ki nga xamante ne moom mooy moo Modou Xarañ Lo di combat royal ah mu mel ne loolu am na solo waxam yi mën nañ cee jàng lu bare bare bare incha allah am am Lamine tey dafa nekk bisu mbégte kii dafa nekk sama frère bañ na ko ba sax promotionnaire la may woowee kon buñ demee ba tuddee ko bis bu tol nii di bis boo xamante ni bu ñu ko tuddee woon autorité sax mu jibile ñu xool ni Moustapha yi li mu def ci làmb li mu marke ci làmb di idolu xale yi drapeau bi moom moo ko moom loolu moo tax fauteuil bee tax looloo tax ñu tuddee ko drapeau bi drapeau bi nag képp kuy ancien lutteur jàppal ne drapeau bi yow lañ ko tuddee ndax ñun ñoo bokk suñu lee sages mu ciy dox lu rafet di ci wax lu rafet ku mu xam ngay waayam ngeen yàgg a ànd da lay wax ni la man bu ma bokkee les sages dama koy wax toujours Moustapha Gueye moo tax. di nit ku ñàkk kiñaan di nit koo xamante ni joli cœur la.